علام علي ولا زوزني لو xaritu soxna yu baax yi mu ngi lay dalal ci jàmm auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaamu ala seydina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñoo dellusiwaat fii ci ëttu soxna yu baax yi ci suñu émission warteefu doomu aadama gi ngeen ciy àndal seen mbokku taalibe soxna Amina Touré suñu waxtaan bi jàll ñu ngi doon ànd ak yéen ci fonk karim tey ñu fas yéene ñëw fàttalante ak yéen ci sant suñu boroom subhanahu wa taala muy alhamduli alhamdulillah muy sant suñu boroom sant suñu boroom war na bépp doomu aadama ndax suñu borom boo xoolee amal gi la njëkk a amal rek def la ngay doomu aadama defu la bàyyi ma defu la leneen waaye dalaa def nga doon ku taaru mu indi la fii ci kaw suuf wutal la ñaari way jur ñu di la toppatoo ak di la teg ci yoon ba nga màgg mu wutal la mu li li ci yow yépp rek suñu borom wutal la ko kon doomu aadama bu setantalee la lool lool rek war war na cee sant boroomam subhaanahu wa taala sant suñu borom nag fépp foo ko xool rek gis ko ndax ci lépp rek lañu mën a sant suñu borom subhaanahu wa lépp ci lañu war a sant suñu borom subhaanahu wa ndax yàlla dafa doon ku màgg ku sell ku kawe ku tedd koo xamante ne moom mooy borom mbir yépp waaye yàlla daf ñu indi ci kaw suuf bàyyiwuñu noonu rek bëgg na rek saa yu nekk ñu gindeeku ngir di xam di xam di ñuy niñ koy jaamoo ba di ko topp ba suñu àdduna mën a yéwén suñu àllaaxira mën a yéwén ba suñu borom tax na saa yu demee ba jamono ràpp rek mu indi fi koo xamante ne ni dañëw di yeesalaat di yeesalaat diine gi ngir ñu mën a tegu tegu ci yoon. suñu boroom moom mooy moom mooy moom mbir yépp képp lu waay am rek suñu borom moom moo la ko jox lu waaye ñàkkit suñu borom moom moo la ko xañ moo tax nit ki war naa sant suñu borom subhaanahu wa taala ci lépp. nit dina sant ci lu neex waaye itam dina sant ci lu naqari ndax suñu borom mën na laa defal mbir mu sedd sa xol lool neex la lool dëppook na nga ko bëggee donte dëppawutoon na nga ko bëggee sax suñu borom mën na la kaa defal nag kawe sa njortu nga daal di cee sant sa borom subhaanahu suñu borom it mën na laa teg natt bu méttee méttee métti waaye nga wëlbatiku rek daal di cee sant sa borom subhaanahu wa taala ndax boo xoolee na sant mu gën a gaaw ci tegg ab nattu ndax nit ki suñu borom mën na koo nattu mu mu di mu di ñaan mu di ñaan du tax sax maanaam natt ba teggeeku waaye mën naa sant boroomam ba suñ borom teggi natt boobu nattoom boobu suñu suñ Tuubaa radiyallahu anhu suñ ba mu nekkee ci tukki bam taatu garab ga nga xamante ne fa la nekkoon barab ba mu daan faral di toog suñu borom toog na ba nga xam ne mu mel ni rek barab bi da ko xaw a sàppi nii suñu borom di muy ñaan suñu borom suñu borom mel ni daa gën a yokk nattu bi muy ñaan suñu borom mel ni suñu borom daa gën a yokk nattu bi terewu ko jaamu yàlla terewu ko sàbbal yàlla terewu ko la la ko waroon ci diggante ak borom ma ngi ko doon matal ba mat sëkk waaye terewul muy ñaan suñu borom suñu borom mel ni da koo gën a gën a gën a gën a teg nattu bi waaye mu wëlbatikuwaat di santaat boromam di santaat borom suñu borom daal di teggi nattu ba mu ba mu jeex tàkk waa mu daal di koy teggi nga ngeen gis ne kon sant moo gën a gaaw ci ci ci teggi nattu sant dafa màgg te dafa kawe dafa am solo lool. waaw Serigne Touba boo xoolee bisam bii nga xamante ne àdduna sépp ñoo koy màggal moom ñoo koy faral di màggal ñu sant boroomam subhaanahu wa taala da ci sant borom buy wut ko ko ci sant sant le ngeen gis ne sant ni mu màggee ngeen gis ne kon xéewal yi at mu jot rek di gën di bari di gën di yokk ndax looy gën di sant rek suñu borom di la di la gën a dolli xéewal la la in shakartum wa azidannakum suñu borom boo ko boo boo ko santee rek mu dolli la suñ borom boo ko ñaanee may la waaye boo ko santee tamit mu dolli la kon nañuy sant suñ borom subhaanahu wa taala ci lépp bépp mbir sa jëmmi bopp ji rek war nga cee sant sa borom ndax boo xoolee sa borom sa cër yëpp amul benn boo xamante ne suñu borom laajgil na ko sa cër yi yaa ngi dox normal yaa ngi gis normal yaa ngi def li nga bëgg li lépp lu nga bëgg rek suñu borom mi la ko na la ba mu yëwén ci yow nga di ko jëfee nga di ko def comme ci anam na nga nga ko bëggee kon loolu nit ki war na saa yu rek sant boroomam war ngaa sant sa borom ci laggil ci jaamu sa borom ci làggil say cër ci jaamu sa borom subhaanahu war ngay su sëpp sa sujoot sa di sujoot di di julli di sant sa borom subhaanahu wa jaam bi war na lépp rek mu ci sant boroomam bépp mbir rek mu ci sant boroomam ndax xam naa sant borom bi subhaanahu wa lu yaatoo yaatu la sëriñ Mbacke Abdoulaye ku sell kii ni mu ni mu koy leeralee rek daan ne dafa am sant dafa am jaamu am sant jaamu dañ ko gaa daa doon mbir moo xam ne dañ koo gàll ci ci ci ci nit ki nga xam ne par force da koo war a def bu ko bu ko bu ko jëfewul da da ñu mbu ko ci mbugal bu ko jëfee nag mucc kon ñuy góor góorgóorlu ci jëfe ñi eh, li nga xamante ne moom lañu suñu borom gàll muy jaamu gi nga xamante ne par force la ñu war koo jaamu muy farata yi kon loolu war nañ ci góor góorlu bu baax a baax suñu kemtulaay kàttan sant gi it nim ko leeralee rek suñu borom dafa dafa dafa sopp ab jaamam dafa bëgg ab jaamam di ko sant nit ki war na di sant boromam saa yu nekk dafa bëgg ab jaamam di ko sant te bu dafa nit ki buy sant boromam suñu boroom da koy gën a da koy gën a rus da koy gën a bëgg da koy gën a fonk te da koy gën a naaw kon nit ki war na saa yu nekk rek muy sant boroomam ci lépp loo xamante ne boroomam subhaanahu wa taala defal nag ko te xam ne cant dara gënu koo màgg ndax suñu borom dalay defal ay xéewal mu màgg lool xéewal yi wër la doo xam nooy def sa xol fees dell ak mbégte doo xam looy def fu saa yu wëlbatikoo rek yem ci sant rek sant rek ngay mën daa def daan ne alhamdulilahi rabbil alamin kon nit ki war naa sant yàlla bu baax a baax a baax suñu borom mën na laa teg nattu euh, nattu bi metti lool nattu bi metti lool mbir yi metti lool ngay xalaat di ñaan di xalaat di ñaan waaye fu mujje rek mooy rek daan ne alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom moo ko bëggee noonu ndax gis nit koo xamante ne rek suñu borom mën na koo teg lu méttee méttee métti fi ne nit tey jii bu faatu woon rek fa ñu mujjee sant yàlla rek sant ndax yàlla moo ko bëggee noonu loolu lañ ciy wax amuñ leneen luñ ciy wax lu dul sant yàlla moo tax sant dafa màgg lool te kawe dafa màgg lool te kawe ndax nit ki saa yu sant rek xamal ne ma ngay fàttaliku boroomam xam na ne lii boroomam moo ko jox moo ko moo ko jox mu sant ci boroomam bu fekkee lu ko xañit mu xam ne lii boroomam moo ko xañ moo ko sañ daal di ko cee sant suñu borom moom mooy aji màgg ji suñu borom moom mooy aji kawe ji suñu borom moom mooy ki sañ moom mooy ki sañ a def mbir te kenn du ne ko déet yàlla rek moom mooy boroom mbir yi moom rek moom mooy ki màgg ki moom rek moom mooy ki sañ ki suñu borom moom mooy bépp mbir mu am rek suñu borom moom moo ko amal nit ki lu am suñu borom moo ko jox nit ki lu mu ñàkk suñu borom moo ko xañ donte dangaa faatu su ci mbir rek suñu borom moo xam sabab ya ñuy jaar ba faatu ñu xam ne kooko daa waroon a faatu bis boobu nga war a faatu kenn mënu koo romb faaw nga faatu bis boo xamante ne mbir dalay dal tamit mbir moomu kenn munta teree mbir moomu dal la ku dul suñu borom mi nga xamante ne moom moo la bind yàlla bépp mbir mu am rek suñu borom moom moo ko amal bépp boo mbir moo xamante ne nii rek nit ki da koo ñàkkit suñu borom moo ko moo ko xañ kon ngeen gis ne njariñ ak lor lépp rek ma nga bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa taala du kenn moom moo ma a jariñ kenn wala du kenn moom moo mën a lor kenn nit ki dal mën na laa defal mbir sax nga nga soxol sedd ci lool nga sant ko ci lool sa xol sedd ci lool nga sant ko ci lool ndegam nit moo moo lay defal mbir nga kontaan ci loola ba sant ko ci asamlaa suñu borom bi nga xamante ne moo ñu bind moo ñu moom def ñu ñuy ay doomu aadama patta lu ñu làgg lu ñu ñu def ñu ay nit yu mat sëkk def ñu ñu doon ay jëmm yu taaru indi ñu fii ci kaw suuf def ñu ñu ay jullit loolu rek doy na sëkk sëkk sëkk ak sant loolu doy sëkk sëkk sëkk ak sant suñ borom natt na la nga am lu la dal wala lu la làggi wala euh, benn mbir bu la dal ci sa ci sa ci sa jëmm xamal ne loola suñu borom la soob xëy na daa doon natt boo xamante ne boo ko muñee muñ gu sell rek suñu borom dana la ci fay ëllëg ay yiw yu kawee sa njott yoo xamante ne nii euh, suñu borom subhanahu wa taala moom moom rek moom mooy xam dayo ba kon mbir bépp mbir bu jóg rek war nañ cee sant yàlla bu baax a baax a baax ndax yàlla moom moo yeeyow cant yépp rek cant yépp rek ñeel na suñu borom subhaanahu wa taala kon nañuy sant suñu borom subhaanahu wa ci mbir yépp waaw ci mbir yépp alhamdulilahi rabbil alamin yàlla rek mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom fa tabaarakallaahu mbokk yi kon ñi ngi yem fii ak yéen ba beneen yoon suñu beneen jeetaay fii ci ëttu soxna yu baax yi ñuy ñaan ngeen aimé suñu page Facebook tey abonné suñu chaîne YouTube